tur ak baatu ki nga xam ne tey ji noonu mooy sunu sunu Sëriñ Tuubaa mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général des Mourides àllarba lan daje ci kër gi ci Daaru Minam mi man mii Bachiru Poroxaan ma jóge Poroxaan ñëw Tuubaa sëñ ma dikkee ñang ma taar surañ Mamadou Diop Decroix ak sëñ Bass Mbàkke mii jóge Ndakaar ñëw Touba sëñ bi woon noonu ñëpp te amu ci kenn koo xam ne wax na la lam lay doye wala la tax mu jóg loola nga ñëw man ñaare waxtu moom yàlla ko bindee muy koo xam ne du firnaal kenn da daan def bu may woo lu may lu mën di doye loon damay woo wax ma ko nangam ak nangam laa lay yónni bii yoon la ma sa woo te xamuñ sama bopp dara ba si ñoom ñi loola leen daal nga xam ne damay jékki-jékki rek daje ci néeg nun juróom suñ mu jékki-jékki rek agsi agsi génn toog nu yoogu nun daal ni maa leen woolu te tax mu woolu leen mooy yéen da ngeen bokk ci sama njaboot kenn ku ci ne am na cër boo xam ne danga koo amee ci kër gi ak ci njaboot gi ak ci yoon wi ñaareel ba it mu am ci yenn yaakaar yoo xam ne am na yitte yoo xam ne bu ma ko amee war koo doxal sama bopp kenn ku nekk ci yéen doy nga ma ci moo tax ma bëgg yéen juróom ngeen ànd ndax réew mi toll na foo xam ne fii eh, man ci sama wàll bopp li may wut ci sama diggante ak sama borom fay laay alhamdu am naa ci yaakaar bu baax ne am naa ngërëmul yàlla ab julli nag boo amee ngërëmul yàlla ci àdduna ba am ci yàqin yaakaar naa bu fekkee ne noppaloo rek la bëgg mën naa tëdd noppalu waaye mu ne àdduna moom yàlla da koo binde fitna yàlla def itam képp koo gis muy dox ci kaw kaw suuf bu amee njaboot rek moomut bopp ah, moo tax ba lii am ci réew mi dafa mel ni biir Tuubaa gi la am dafa mel ni sama biir kër gi ci la am noonu la ma mettee noonu la tiisee ci man rawatina bakkan yi nga xam ne dañ cee rot te lépp di réewum Sénégal di bokki kese bokk ndey bokk baay di yeewoo ci mel ni réew di yeewoo ci seen suuf metti na ma naqari na ma tiis na ci man léegi nag ab bëri moom ñaare koy seq xeexen ñaare koy seq mbaa ñaari mbooloo yu bokkut ginnaaw nag lii am na ba noppi li ñuy njëkk def mooy jàppe ko nattu yàlla xam ne fitna la fitna nag du xeexee rek taxaw day am sabab lu amul sabab ci àdduna amul loo gis mu am rek sabab am na sabab waaw maa ngi sant yàlla am na sabab lekk naa ba suur am na sabab damaa xiif lépp lépp am na sabab leen lu ne am na fu mu jaar ba doon la doon ah, lii nag am na sabab fitna la waaye am na sabab ñaare ko séq kenn ki am na lu mu wax ki ci des waxagumaak moom te man du ma àtte ñaari mukk te ma ñaari ñëpp ba xam sama ñaari gone buñ jotee buñ jotee te fekkuma fa mu ñëwee dama naan luñ jotee kii lu mu def kii lu mu def ma door a wax lu may wax te sama ñaari doom rek a jote kon nag ginnaaw kii am na lu ma xam ci moom ñi ma ña ña des nga xam ne xawma ci ñoom lu bari te mbooloo lañu day ay ay parti politique day ay association di mbooloo lañu mu kenn xamul nuñ toll mënumaa dem ci ñëpp mënumaa laaj ñëpp te yàlla dogal na nag njaboot gi lu nekk ngi ci ñaari ñii bokk nañ ci di Diop Decroix ak ak Makhtar Sourang mi Madické Niang ku ne xam ni politicien la waaye ak taalu bee ko ñor démb moo ko ñor tey te bu ko yàlla dimbalee moo koy ñor ëllëg yéen ñi sama ñaari doom ngeen yi ñoo xam ne dégguñ kenn ci yéen mun na ci lu mu watt nekk mbaa mu ànd ak mu watt ànd mbaa mu ne ci fen bàyyi dëkk kon nag yéen juróom bu ngeen àndee ku ragal yàlla te seet yàlla fu ngeen ne dañ xam ne suma jëmm fa ne kon dem leen bu ngeen demee ginnaaw yàlla dogal na ñii bokk nañ ci mbooloo tey samay doom dong lañu ngeen waxtaanal ma ak ñoom mais lii am metti na ma tiis na ma te xam naa ne ñaare ko seq du ñoom rek waaw du ñoom rek sa léegi nag li ma bëgg nag balaa dara xew nañ jàmmoo ba noppi ndax ñaar boo leen di atte ku nekk nga ne ci digg bu ku ne dóorub yar bu yàgg doo ci mucc kon nag ni ñu njëkk a def mooy nañ ma dimbali ngir yàlla mi nga xam ne moonu boole réew mi jox mu cër bi ma jox tey ji sax cër bi ma lay ña li ma leen di ñaan xalif général ñaanu leen ko suñ mu doxaay ñaanu leen ko citoyen ne nit ñoom moo leen ko ñaan kon nañ ma dimbali ngir yàlla ak réew mi ñu bokk dakkal xeex beeg fitna ji ba noppi wax ma la leen naqari ak la ko sabab buñ ma ko waxee ba mu bu ñu ma mayelee ba noppi ndax bu ngeen maa ngi leen koy wax kat bu ngeen ko ko mayetoon tey jii lu ngeen waxee duñ ko ko wax noonu ndax ñu nekkoon te xam na ñu mu tànn yónni leen fi kon nag buñ ma mayee lii ba noppi wax ma la leen naqari ak la ko sabab ci seen wàllu bopp jeneen doom ja ca des nag te nga xam ne ñoo jaamaan loo moom danaa leen woo ni mu waxee ñoom ñi nu ko raw laay waxee ñoom bu fekkee lu ñu def la ñoom tam sax man leen bàyyi leen ko dindi leen ko réew mi am jàmm ngeen jàmmoo del del doon ay doomi mbay ak doon doon doon ay liggéey Sénégal ñoom it ma ñaan leen yéen bu ngeen may bu ma leen ñaanee ngeen may ma adduna sépp danañ ko yëg moo ko waxut sax danañ ko yëg ndax jàmm ci la lu ne xaj te ko am jàmm xam ko ku am ay xamu ko te ay du du du yem ci bopp borom ñeje de sit bu ñu ma waxee la leen naqari la waral lii am ñu jaamaarloo gi am fitna ji am danaa leen wax nii ni ma waxee ñoom noonu laay waxee ñoom nee nañ ma kat nangam am na nangam am na def ngeen nangam nangam naam ma nangam ko saw naa dakk na fi am loolu laa leen digal ñaan naa leen yéen itam ngeen def nii li indi jàmm ngeen def ko te mooy li ñuy wax bu ñooñee defee loolu jàmm bu ñooñee deful loolu nag ma xam ne sama ñaari njaboot ni ñu jote kat ñii may nañ ma ñi mayuñ ma te àdduna sëb dina ko yëg loolu lañu sëñ bi yebaloon ne nañ nañ nañ nañ fi ñëw bi ñëwee nag ah, yàlla moo wax dëgg yàlla waxtu ne daan bett ak xeewal waaye tey ji bett nañu ak xeewal ndax liin fi fekk kat fooguñ ko woon ndax fekk nañ fi loxo yu ubbiku xol yu ubbiku xel yu ubbiku ñu jàppe nu ne ñu bokk ci ñoom daanaka jàpp nu ay doomu ne nëbbuñ nu dara wax nu lépp ginnaaw bi ñu leen waxee li sëñ bi bëgg lim leen ñaan ak lim sàkku ci ñoom ñu xamal nu diis goo xam ne loolu diis na ko ne sëñ bi lu mu bëgg danañ ko def waaye li mu bëgg kat du lu woyof wax nañu la ne ci biir lépp lañu naroon lépp ak la naroon am lépp ak waajtaay yépp nëbbuñ nu ci dara lépp wax nañu ko waaye nañ li muy diis diis diis nag ni ko Ousmane waxe sëñ bi moom ñaan ñaanu da da leen a digal te loola danañ ko def waaye nag danañ wax it li ko sabab ndax bu ko sëñ bi waxatoo ni bu ñu ko waxatoo ëllëg si biir lii day dellusi si rek léegi nag ñoom it wax nañ mboolem la nga xam ne moo leen naqari wax sabab mboolem li nga xam ne moo indi lii lépp te te te njëkkewul lu yàgg la ba agsi fii lépp bind nañ ko déglu nañ ko jàpp nañ ko nii nu amee ngoru déglu sëñ bi mu yebal nu wax nu lim nu wax nu ñëw bàyyiwuñ ci dara incha allah ngor googu la am ba bu demee lu ñu fi jële duñ ci bàyyi baat moom nag ci wàllu boppam ni ma leen ko waxee yaakaaru man dangeen ngeen ko gën a gore ndax kon du tegu fenn bu ngeen gënee gore sëñ bi du tegu fenn kon du doon lim doon waaw te wan ngeen ko ngor ndax xëy na xamul sax xamagut sax li ngeen ko may ni mu diise ak ni mu ci leen ndax nun ñi mu yebal ban fii ñëw xamun ko bi ngeen nu ko xamalee ak gun ba xamal ko ko waaye yaakaar naa buñ ko ko xamalee te dëggal xamal ga wax ko ni ngeen ko waxee na ma ko xamee bu ko déggee bu bu bu bu bu ko déggee nañ ko ko waxee yaakaar naa du ngeen ko gànnakoore lépp loo xam ne mën na ko dana ko def doom nag da ko jur mu ëpp la doole nga wax ko mu bañ da ko jur itam ngeen yem doole mbaa nga digal ko mu def di ñaan na leen digal na leen def ngeen ko muy benn doom bi ba ca des dana ko ñaan dana ko digal bu defee nim leen sant gëne gëne may leen ko ci kanam àdduna sépp dana ko def dana dana leen ko defal bu ñu ko defut it àdduna sépp danañ xam ni ñaan na leen sàkku na ci ñoom mayiñ ko loolu daal moo doon tënku tànk yi nga xam ni moom lañu dox si ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ma sëñ bi booleel te kenn ku nekk mën a wutu sëñ bi ci mbokk ak bi ak pas-pas bi ñëwee it wax dëgg yàlla ni ma leen ko waxee fay laay alhamdu lañ bàyyi tubaakat lañ fekk fii yar ak teggin ak bi dañu bàyyi moom lañu fekk fii kon nag loolu sant nañ ci yàlla bu baax bu su njot rafetul nag du nay jullit ndax njott lu rafet moom lu agsee gut nga gis lu koy wane rek la waaw lii agsee gut nag lii ko tàmbalee wane ci jotaay bii dal na xel moo tax nag ñaan du doy jullit moom ngannaayam mooy ñaan sëñ baa ngay ñaan danañ continuer di ñaan ba lii nga xam ne wax dëgg yàlla jotaay bi indi na ko muy xel mi dal ak rafetoo ak yar ak teggin ak sedd sa sa sa kilifa cër loolu na ñaan mu wéy te da daj ñëpp nag waxuma bu yemee ci yéen rek ayam day daj fépp day daj ci wàll yëpp lépp doon benn loolu mooy li sëñ bi ñaan moom la ñuy ñaan te bu amul Sénégal dana yàqu te bu yàqoo nag bu leen yaakaar ne du Diop rek lay yàq wala Bassirou Mbacké rek wala Ousmane Sonko déedéet kenn ku ci ne sa doom dana ko yëg sa ndey dana ko yëg sa mag dana ko yëg sa waa kër dana ko yëg sa néeg danañ ko yëg sa sa sa sa sa sa dëkk danañ ko yëg kon nag nan def jàmm nan nan ñaan jàmm te rafet nañ ci njortu bu baax ndax fii kat jàmm rek lañ fi fekk yàlla nañ fi yàlla nañ fi dellu siwaat ci jàmm ma ci dolli nag rek niñ ko waxee nii rek eh, sëriñ bi moom yéen ñëpp la fi nekkal te lii dañ koy jàppali jàpp jàppe tàmbali waxtaan li ñuy ñaan bu amee jàmm amit dana sàkkul yi wéy di diisoo di waxtaan ndax ay njaboot kat lu ñu bokk-bokk ak lu ñu jege jege jege bu kenn ku nekk dencee la na ci soxal bu yàggee réeroo dana amaat waaw te bu réeroo amul rek déggoo am te bu déggoo am mooy jur jàmm kon nag lii noo ngi ñaan rek mu continuer daje yi di am mun na ko sëñ bi digalee ñu di ko def mun na ko sëñ bi digalu nu di ko def ndax bu ñu ko defee bu ñu ko defee nof laayam rek lay doon yàlla nu yàlla nangul yàlla nu yàlla dimbali yàlla nu yàlla musal yàlla nu yàlla taxaw li sëñ bi yéene ci dëkk ci ci réew mi ak ci ak ci ak ci ci ci ci ci mbokk gi yàlla na ko yàlla def mooy jàmm ak juboo ak ak dëppoo te lii itam ci ñépp lañ leen waxtaani moom mu sañoon mu daj fépp opposition bi ak société civile bi ñëpp ndax ñëpp pour ñun ay Sénégalais li li sëñ bi wax keroog man di ci reetaan yi naan sëñ bi kaw kaw la ndax nationalité la wax te moom nationaliste lañ doo ko doon ba noppi ku ku am national nga di nga di nga di ko ber da koy jàppee ne sa bopp ndax boo ko defut rek li nga bëgg si réew jiital si réew mu jaral la lu ne doo ko mën sëñ bi moom foofa nekk la nekk ñun nan ko roy ci loolu ñun ñëpp opposition yi ñëpp kenn ku ci nekk dëggal rafetal sellal te xam ne kat ñun ñëpp dañuy jàll ëllëg Ousmane ak ñëpp ay gone lañu waaye yàgg-yàgg danañ màggat danañ fi jóge li ñu mës def ñu nettali ko ñun ñii itam noonu ndax suñu baay jaar nañ ci suñu maam jaar nañ ci kon ne nan ñun ñëpp nañu rafetal te te góorgóorlu te sax ci loolu ku ko def fay layal xam nan ko def noonu ku ko defut itam nan ko def rek li Sëñ Tuubaa waxoon wasalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. jërëjëf euh, sëñ Bassirou euh, li nga xamee ne ñoom may nañ la.